en tout cas euh, xamoon naa ni suñu yu ñuul yi euh, internet yi dinañ ci wax ñi seetaan ñëpp ñu ngi ne waa yéen seen yu ñuul ñi tey lan la ba pare suñuy euh, li ñu takk ñuul ñu sol lu ñuul ñëpp ñuul. <laughs> li waar de. ndax du hmm. tegtal <laughs> ndax du tegtal en tout cas daal euh, lu doy waar la baan. Euh, maa ngi lay ziar maa ngi lay ziar. xalaas euh, moom ñëpp ñun lañ sol. même passe partout sax. mais ñun ñëpp ñun lañ ba pare baan sol ay dàll yu sax yaa tane ndax sol nga dàll weex man samay dàll am na tuuti weex. mais baan moom tuuti war la sol. am na ku tudd Daouda Bari. Mm-hmm. mi ngi judd le 30 mai 1950 ca Tambacounda. Mm-hmm. doom ci Amadou Bari ak Aysatu Bari. dafa faatu ca jamono yee kooram mu ngi fële ca hôpital bu Saint-Louis ca waaw hôpital bu Saint-Louis fa koor ba ne pour képp koo xam ne xam nga daaw da Bari mii judd 1950 di doomu du Bari ak Aïssatou Bari ca Tambacounda nga dem ci hôpital bu Saint-Louis nga laajte ko koor baa nga fa war na faa def nag euh, deux semaines yooyu noonu noonu waaw parce que daal euh, dafa mel ni daal amoon na ay ay ay quelques problèmes mu waaw mais koor mu ngi foofu mu ngi foofu waaw takk der yaa ko fa yóbbu kii benn xale bu jigéen la boo xam ne neen dafa bëgg ñu dimbale ko mhm. keroog dañu fay jàllale benn reportage bu Marème Diop RFM mhm. Touba def mhm. ci jigéen ñi nga xam ne dañuy jaay seen bopp ak coono bi ñuy dund ci jamonoy Covid bi daf ci am xamante ne dafa wax mais baatam dafa niroo ak keneen ku ñu xam lool ca dëkk ba kooku ñu xam moom euh, jaaykatu yére la ca marché bu Mbàkke mhm. léegi nag ñu bëri dañoo yaakaar ne moom la du moom mm, da koy leeral mm. kii Mariama Diop interrogé mu bokk ci jigéen ñi jaay seen bopp mhm. mu wax mm. bokkul bokk ak kooku yi ñu xam muy jaay ay yére fële ca marché bu Mbàkke du benn. kooku daan katu dooleem. voilà baat yi ñëw balaa ñuy dañuy daan seen doole daanin wee bokkul rek. <laughs> am na solo waaw yenn saa yu yu yu yu noonu yu mel noonu day am. Mm-hmm. yu mel noonu day am. baan fee dëgër am na dër am na fu mu baax léegi. Ah. daa sëy eh, sëy booy wax da ngay kii da ngay xaw a mooy tax doo def ay kii yu bari. kenn du la jaawale ci antenne bi. mu bari na animateur yoo xam ne ay. produit yu bari dañuy def dañuy dañuy toog <laughs> ante bi di jiw rek te ay professionnel la ñu. boo boo dëree nag yàlla daf la ciy dimbali. Eh, kii baan waaw ak xalaas am na. xalaas ban la noonu. Ousmane Sonko. kii Liverpool booy numéro Sadio Mané laa soxla. waaw parce que man dóor yi man man seeti dóor de métti na ma torop torop torop. mais ban esquivé gi ngay esquivé euh, Ousmane Sonko. pour lan loolu man daal numéro Sadio Mané laa soxla barke Rousseau laay démb reeru ma laa lay xamal ni on non de ok ban nañ dem ci xalaas vraiment Sadio na ma yaakaar dafa sonn dafa laaj massage fi mu nekk. non man wax dëgg yàlla man bu dóoru dóori démb métti na ma. dafa sonn man mét dafa mel ni Sénégal lañ gañe démb. kaa Ousmane Sonko bi loo ci yàbbi ci amoon loo. Euh. vraiment ke ki raté penalty moo moo dugal moo dugal premier bi cité bi. baan baan ñaar yëpp sax baan nañ dem en tout cas kër goo dugg. diwul ah. soxna kolob soxna xaw ma kolob la xaw ma. kër goo dugg diwul soxna. ñu ne la papay xale bi wala yaay ji supporter Marseille la. waaw ba boo nga takk kooku dina mën a muñ comme li nga waxoon ci Arsenal. waaw man non ban eh, kii Ndiaye man sama xol bii. buñ ci mënoon a. mun daal rocci Marseille ba mu si si wuti. loolu moom ngay kii. Liverpool moom vraiment. Malaisie malaise am na fa. ku dem numéro Sadio Mané nangu ko wutal. <laughs> non dóor yi na ma trop. Eh, fu ma koy jëli. Malaisie Ndiaye. <laughs> dëgg la Ndiaye <laughs> jeunes yi dëkk bi. nañ jéem a yeewu. ban naa la trop. waaw dafa maanu léegi dëkk bi. non maanul daa xam ko nañ yeewu. <laughs> lu leen daal. ay nit ay dem ay Côte Mali di leen nax. déglul ji nga xam ne moom ma nga ca yëf uh-huh. na muy naxee waa ji ne fii pour mu ñëw fekk si ko. nekk senegal yi déglu attentivement. boo ah, wax naa la condition yi fii man njaga man xas ñëw fii ba ci entreprise bi. entreprise bi entreprise bi ay tubaab ko moom entreprise bi malaisienne la Malaisie la jógee ñëw fii ay tubaab ko moom te lu ci gën a neex mooy bu ñu lay fay euro lañ lay fayee ki lay fay nekkul fii la ne ki lay machine ma lay fay machine dañ ko programmé par Malaisie Malaisie euh, booy fayee ko chaque fin de mois sa portable bi message bi mooy ñëw nga dem retiré ko dollar lay doon dollar dollar moom la ñuy fayee fii amul kenn kuy fay sa morom amul pay amul paiement yu retard yu retard yaa ngi dégg moo tax may la man Ndiaga Seck man ma xas ba ñëw fii ku ma joxoon ñeenti millions na ma kaay dem Espagne wala Amérique liggéey foofu te nekkul société bii damay bañ dama la koy dellal dama xam ne kii dem man sama instant yi sama morom yi dem Espagne am fa ñeenti at man leer na ma ne su ma fi amee at dinaa mën a loo xam ne mënuñ ko def man loolu xam naa ko suñu mbokk saalum saalum nekk Espagne wala Amérique am fa ñeenti at man su ma amee fi benn at man njega man dinaa mën a def loo xam ne mënuñ ko def ñoom ñu jëndee dee jënd oto 5 millions man mën na maa jënd oto 10 millions waaw bu ñu tabaxee këru 10 millions man mën na maa tabax këru këru 15 millions fii ak at laa la wax te ñoom jiite nañ ma 4 ans Espagne di liggéey man ma nekk fii Côte d'Ivoire man daal li ma di conseil mooy noo mën a def pour ñëw def ko amul waaj noo mën a def pour ñëw def ko nga ñëw morcé ko même bu dee da ngay xaalis nga ñëw def ko nga ñëw am na sama benn jarbaat defal naa fi demande place ba am na tey lay dugg si kii timis bu soobee yàlla fi mu la dugg mu ngi si yoon nga am place nekkul fii da ngay def demande da sa carte sa carte d'identité photo sa portable ñaari côté yëpp ngay photo nga envoyé man dama koy retiré suba parce que fii ñaar la ñuy jëlee nit ñaar confiance ak connaissance connaissance mooy ku ñu xam comme ça man ni ñu ma xamee am ci man confiance ma déclaré leen dama la bëgg indi ñu laaj ma yow yaay kan ci man loo doon ci man sama mbokk nga wala sama xarit bu dee ko xam ngeen dund loolu mooy loolu ñaar yooyu la ñuy jëlee nit mais boo amoon ay millions ñëw bëgg fi am place doo que xam kenn xamul la société bi ku ñu ñuy jël da fekk ki fi nekk ñu xam ko bu baax après boo indee si keneen ñu doo ko mën a jël loolu la ñuy léegi nag comme samay mbokk ngeen man maay jël garantie boobu xamal ne ne ñoo bokk famille ñoo bokk deret loolu la fii noonu lañu jëlee ay nit noonu la ñuy jëlee maanaam par connaissance la jëlee nit ak confiance mais boo yoon ay millions ñëw bëgg a inscrire pour def demande duñ la jël parce que kenn xamul na fi xamul ban a dégg ko xeex wala xeex kenn du lekk dërëmu kenn parce que su tubaab boppam ñoom ñoo ñuy fayal seen bopp fañ nekk foofu ci Malaisie ay machine lañ ko programmé la ñuy fay ñoom par dollar su weer sa deewee su weer su deewee sa portable la sa paiement di ñëw da ngay jot message dollar lay dollar moo tax seen loo mën a pour ñëw rek ko boo ñëwee man Ndiaga Seck man ngay fekk wax bu fekkee am na lu si wàññeeku après nga xam ne man parce que man li ma def ba ñëw boo ko defee war ngaa mën ñëw sama xarit ñoo bokk benn dëkk bu buur moom moom la fi xaatam bi xaatam bi ko mu ne mooy li ma la wax rek. Euh, mu gën a leer. non li mu gën a leer c'est que waa ji dafa am ci benn business bu mu ne. Mhm. ca Côte d'Ivoire. Mhm. ba booy bay nax jeunes yi naan leen di ngeen ñëw doraal la ñuy fayee machine leen di fay nangam mi ngi baab benn booy. pour mu fekk si ko. su booy boobu ñëwee nag ba yónnee xaalisam ba dugg. maanaam daf fay ngiro ngiro goo xam ni dootul mën a bouger booy boobu fa ngiro nag il faut moom mu def comme nii kii di def woo beneen beneen hmm. passeport nax pour ñëw pour wan ne ni jeunes yi Sénégal du gaali rek li ñuy jël am na ci ñeneen ñoo xam ne ñu ngi leen di nax nax yi mel ni ñuy gàddu seen i bagages di demi Côte d'Ivoire di demi Mali di fa ngiro te sooy ñëw dañ naan la da ngay joxe temps sa carte daan ngay joxe benn liggéey boo xam da ngay signé ba contrat wu quatre-vingt-dix ans suñ la demee ba jël sa xaalis ba mënoo bouger nag yow dañ naan la pour nga dugg il faut nga naxaat yeneen i boy Sénégal ay jeunes pour ñoom ñu jël seen xaalis ñu ñëw fekk si leen Côte d'Ivoire ci benn àll maanaam benn genre réseau la. Mm. réseau yi ñu daan def fii léegi dañ koo déplacé yóbbu ko ci àll bi mais dañ soo xamee xasee ba dem daal ba bokk ci ba nekk ci biir yow pour nga mën a nekk fa. be boo ci ba dugg doo ci mën a génn. mën a génn léegi nag ña ca nekk de Sénégalais ca nekk jamono ji mm-hmm. ñooy yónnee ay vocal ak di woo seen mbokk ak seen i xarit pour ñu fekk si leen yu ci bari nag marchand ambulant yi lañ koy def ak ñi yor yor commerce yu ndaw ndawaan ñi nekk ci dëkk bi di góorgóorlu pour xale yi jéem a yeewu ci lu ñuy dugg ñu seet ko seetaan ko baax a baax a baax a baax léegi laaj bi mooy ndax en fait ndax bëgg tekki la hmm? ndax gàtt xel la wala ndax yàkkam si àdduna mais lu mu ci mën di doon daal euh, bala ñu ciy dugg nañ ko saytu bu baax loo xam boo ci duggee dañ ciy gaañu hmm? na doon lu leer avant nga ci avant nga ci dañuy fay dem seen yaay ak seen papa di ñëw fii ci rajo bi naan ay ay ay ay sama doom dafa dafa rek yu kenn xamul ci mm-hmm. yu mel nii la nañ ci bàyyi xel voilà di bàyyi xel seen doom yi ku ci nekk xam sa doom ci lu ma ne njaay ma lay indil beneen maire boo xam ne moom jëkkër ji kenn xamul lu mu doon maire bi dafa jàng ba am bac plus huit ñu fi Sénégal nekk cadre kon yow ban doo wax ci kaw euh, dégg nga Ousmane Sonko dégg nga maire bi ci woppam dafa am dafa dafa dafa dafa am jëkkër joo xam ni. jëkkër jëkkëru sorcier la moom man maa ngi wax mais moom day mm-hmm. mm-hmm. jëkkër jëkkër booy dama jóge hôpital laa jóge. maay jégalu maay jégalu dama amoon repos médical. une semaine di doog a ñëw moo yokk ay feebar. maay jégalu voilà. Mm-hmm. maire bi bi mu ñëwee ci biir famille ñu koy xeex di ko xeex di ko def yónnee daal ba sëyam tas mu takk ay bagaasam ni day dellu bitim réew toog bi mu demee rek un jour rek mu xëy suba rek dajeeg benn nit. attends victime bi la jógee ñëw say Sénégal. non non victime la dafa jàngi woon ñëw am bac plus ñëw fii. Ah, nekk ci administration bi nekk fa di liggéey am. doole situation bi compliqué la ne moom day dellu mu daa delluwaat yóbbaale doom un jour mu génn rek dajeeg benn nit. nit ku ni ko yow la diw. mun ko waaw mun ko doomu diw. ak diw ak diw dëkkoon fi mu mu xamante ak moom même pas quelques jour hmm. waa ji takk ko. Hmm? ndeke ki ko takk. bu xaaba la boo xam ni. bu garaaw waa ndaw si bi mu demee ba jaxle dafay gént ndaw si ne day gént kurus ñu koy jox kurus bi mu demee wax ak benn muxadam kooku ni ko dañ ne la nga jël wér de tijaan ndaw si dem ci muxadam dem ci ay nit yu baax ñu jàngal ko teg ko ci yoon pour mu jël wér de tijaan femme bi nekk di julli dem màkk dem fu nekk di topp diineem ndeket loolu mu topp diineem kik waa jooju mu dajal mu takk ko nekk sénégalais waa ji takk na ko xamul ndeyam xamul maanaam xamul ku ko xam te waa ji takk na ko di sëy moom bokk ak moom benn kër te nee nañ wér bi soo koy jël il faut sa borom kër ànd ci mm-hmm. te bañ ko koy jox moom mook boroom këram a ànd kook ko takk noonu mu accepté ko mm-hmm. ñu te quelques jours waa ji ni ko da ngay ba jëkkër ji ni ko da ngay bàyyi wérd bi mun ko duma bàyyi wérd bi ndaw su commencé wérd ay jaana koy wër su génne di liggéey ay jaana koy topp maanaam daal fenn dang fenn dang la mën a toog te du gis jaan yi mooy su duggee ci juma ndaw si dem ba kanam gi changé kanamu doomam yi day changé ndaw si dafa foto photoom moom ni mu mel mhm. photo su kanam gi changé ni muy mel mu yónnee ma ko photo photo